yàlla bu mu yeex bi ñu fàtte li ñu jëmbatal bosu mooy taw neex ki invité di ñu liggéeyal Sénégal neex ama fierté góorgóorlu ñu jëf jël injustice jeex ak pauvreté dam ñu yaatu fa xol yëpp feex am naa tànge di réew mi réew mi am ba neex ñëpp a bëgg ñu dund xewal pusawaan ba waan fier doon fees clair Ousmane dina naan révolutionnaire bu leer jëm daan jant extraordinaire du caaxaan du iñaane missionnaire visionnaire du seer kàcc te du sàcc nit yu bon def ko noonu dégg dàcc xel bi màcc di sonn réew mi jar yoon doore jàlloore waaw góore xale ëppale bay re góore yore kóllëre yéeme te ñeme xare di ko kiite réew président Ousmane Sonko rendi na fi jàngoro bokk si histoire doon héros du bandi du escrow yàq réew mi naanu kow mentu mal ko sosal kow

sur son camp, Sénégalais en souffrance. Toujours dépendant des bandits exempts de France, causés par des gouvernants mauvais nombreux en abondance. Des traîtres méchants, vraiment fiers en cadence. Notre très cher président, Ousmane Sonko, une grande chance. Unique dirigeant qui pour la excellence. Honnête et pertinent, en bon et compétence. Avec lui, il est la délivrance. Pour Sénégal émergent, il en a seule la solution. Santé, assainissement, éducation, Bioautosuffisant, modernisation, production, pêche et énergie, environnement, électrification, mine et industrie, aménagement, télécommunication, justice, effacement, corruption, administration, tourisme, transport, changement, révolution, modernes infrastructures, nouveau pays de bonheur, agriculture, économie de valeur, sport, culture, autonomie de vainqueur, c'est certain et sûr, son compris, il est meilleur. Président Ousmane Sonko, Supernal, Capo, Décapo, Ousmane Sonko ma mère Khalifa rappeur macha allah son bi nice na trop dope son dope son waaw très engagé vraiment respect à Khalifa rappeur très grand rappeur combattant activiste macha allah def liggéey bu rafet. lii lépp nag luy lu tax ñu def ko moom mooy il faut valoriser le travail des des patriotes yi nga xam ni ñi ngi def seen kéemtalaay kàttan ci ni ñu mënee di rayante pour projet bi taxaw pour jëmbat projet bi waaye pour jëmmal projet bi encore une fois pour protéger projet boobu noonu nga xam ni ñun ñëpp dañ ci am yaakaar ñun ñëpp dañ ci gis suñu bopp et ñun ñëpp yaakaar nañ ne incha allah bu soobee suñu borom subhaanahu wa taala dinañu defal ndam en deux mille vingt quatre loolu tax na nag bu ñu xoolee rek ci ñi nga xam ni Macky Sall oppressé leen def leen ay mbir te teewul tey la wàllu gën a ay tey lañ gën a bëgg projet bi tey lañ gën a sopp projet bi tey lañ gën a jaayante ci projet bi loolu war na tax rek ay leçon la loo xam ni nit bu ci nekkee ak lu mu metti metti mu des ci parce que am na ñoo xam ni dañoo jot a subir te dawuñu benn yoon. ku ci mel ni Pape Alé gis ngeen euh, liggéey bu mu sumb nekk ci di éveiller conscience yi di wax dëgg gis ngeen lu mu ci daj daj na ci ay kaso yi kaso daj na ci ay oppression daj na ci ay menace de mort daj na ci sax ñu koy yónnee ay euh, ay nit ay euh, yoo xam ne dañuy wër këram di ko jéem a intimider mais taxu ko mu daw benn yoon lu ne daj na ko ci jël nañ ay téléphone jël nañ euh, fitnaal nañ këram jël nañ ay ordinateur am jël nañ ay moyens yu muy liggéeyee lépp mais teewul tey la ki nga xam ni di euh, journaliste boobu di Pape Alé Niang gën a bëgg projet bi gën a sàmm projet bi gën a sàmmante ak ak yelleef doomu aadama yi nekk ci di jaayante malgré menaces yi malgré lépp li nga xam ni mi ngi koy daj ci projet bi mais tey la ko gën a bëgg tey loolu teewul subir na ay emprisonnement ay grève de la fin lu ne dañ na ko mais tey la ko gën a bëgg Ousmane Sonko kenn waxatu ko moom waaye boo leen xoolee ay ñoom Cheikh Baara Ndiaye ay ñoom Nit Dof ay ñoom abdu Karim ñu ngeen gis ñooñu ñëpp presque subir nañ dugg nañ kaso buñ génnee dañoo nekkaat di wax di wax di wax bañ dugalaat leen ci kaso yi ba tey bu ñu génnee dañuy nekkaat di waxaat continuer combat bi donc loolu yëpp day montrer amour bi ak fi leen projet bi toll fu leen toll mooy bañu ñu ci dee bañu ñu ci dugg kaso bañu ñu ci dara ko projet bi dañ ko gëm porter ko di ci dox di ci wax ba pare di ko jëmmal parce que ñun ñëpp projet boobu bu sottee en deux mille vingt quatre yéen ñëpp di ngeen am jàmm jooju yéen ñëpp di ngeen am salaam boobu te dinañ fexe népp loo leen def pour am ci loo leen jàpp ci loo leen liggéey ay càcc alalu réew mi paacu kook sax njaboot wala jox ko caga ji yooyu day jeex caga ji jël ci amuñu jëkkër amuñu dara di dugg ci avion di taxawaale ci hôtel yi ak wëndaalu ak suñuy ministres yooyu yëpp day jeex parce que doo kenn dootul ama ci sañ-sañ yanu xaalis bi di ko sàcc di ko rawale di di di def comme mille milliards yu ñu seyal noonu ak quatre-vingt-quatorze milliards yooyu wax yooyu yëpp day jeex te bu boobaa day des ci askan wi askan wi dañ ko jëriñoo dinañ mun a développer projet bi lépp mu ngi ci développer ay plan structurel développer am benn modèle de développement industriel et cetera et cetera ci bépp côté ba nga xam ni nit yi dinañ ko jëriñoo loolu nag ñu xam ci projet boobu lu nekk ci biir ak njëriñam ak euh, ñam bi nekk ci biir moo tax ku ci nekk ngi def sa kémtulaay kàttan malgré lépp li nga xam ne dajloo nañ la ko muy nguur gi mi ngi la ko dajloo dawoo benn yoon arrière te bàyyiwoo xool leen Cheikh baara li mu xëy def Sénégal yépp la dajale tey biir këram des millier de personnes biir këram ñuy wàcce kaamil di ñaanal Sénégal jàmm di ñaan ci Sénégal salaam waaye di ñaan euh, Macky Sall libéré détenu politique yi di ñaan Macky Sall libéré ci ñaan yàlla laa wax Macky Sall libéré Ousmane Sonko di ñaan Macky Sall euh, atte dëgg ñi nga xam ni ñoo rey ndaw yi nga xam ni tey jii ñi ngi ci seen bàmmeel ak ñi nga xam ni ñu ngi tëj nit yi ci kaso yi donc tey mu def lu rëy lu màgg sax dajale do de centaines de milliers de personnes tey jii ci këram ba léegi ñu ngi fa di ñaan ñëpp jël seen kurus di wàcc ay kaamil di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala moom ajawajal ki nga xam ni moom mooy kun fayakun di ko ñaan mi ngi nii vous vu donc lii lépp Cheikh Bara def biir këram fu ne lañu joge nag fu ne la ñu jóge fu ne la ñu jóge ñii ñi ngi jógee Casamance ñii Saint-Louis ci barab yépp Kaolack Touba Louga Podor amul fu ñu bàyyi des centaines de milliers fii ci biir la am na ci cour bi tamit ci ka euh, ci mbaar mi ba ci mbedd mi li fa ñëw ci doomu aadama kenn xamul lu mu toll sànq maa ngi wax ak ñoom fu ne lañ jóge ñii ay Casamance ñii ay Saalum ñii ci Bund bi ñii ci pays Basar yi ñii ci euh, euh, Ferlo bi ñii ay Ndaraki Louga ka fépp lañ jóge di ñaanal Ousmane Sonko di ñaanal Sénégal waaye di ñaanal détenu politique yi di ñu libéré di ñaanal ñi nga xam ne tamit ñoo tëdd ci bàmmeel yi te Macky Sall leen rey moom i ki ñoñom waaw ñu ngi nii ñu xool leen lépp Cheikh Bara Ndiaye di jàmbaar faq tëdd moo liggéey lii xool leen nu ñu feesee ci mbedd yi ñu ngi fees dall ci mbedd yi ba nii nii nii lii léegi la direct la man ak moom ñoo ko doon man ak kenn ku nekk foofu ñoo ko doon def gis nga maa ngi nii ci suuf donc xool leen ci mbedd bi lii ba heure bii fu ne lañu jóge nag fu ne la ñu jóge Touba Saint-Louis Podor fu ne la ñuy jógee jamono ji fee dal te kii kii di def lii tëj nañ ko ci kaso yi grève de la faim na daj na lu ne ci àdduna ndax projet bi kii kon kii bëgg na projet bi kii gëm na projet bi te kii xam na valeur projet bi xool leen ñëpp kii Touba ndaw si Touba la jóge handicapé la Touba jóge ñëw pour ci ñaan gi ñaan Ousmane Sonko di ñaanal way daw luy ñaanal ñi Macky Sall rey ak ñi mu tëj ci kaso yi ak Sénégal gi mu noot teg leen tànkam jaay doole ak Ousmane Sonko bi muy jéem a euh, teg ay gàllankoor di ko woon ni yàlla rek ay buur yàlla rek moom moom yàlla rek moom justice xool leen doomu aadama yi des centaines de milliers fu ne lañ jóge wàcc nañ kaamil ñëpp jël seen kurus fii xàmmeewu tiijaan layen murit chrétien ñëpp fi daje di ñaanal ki nga xam ni mooy eh, Ousmane Sonko di ñaanal Sénégal di ñaanal woy dawlu yi di ñaanal ñi faatu ñi gaañu ci combat bi ak ñi ñu tëj ci combat bi kii mooy Cheikh Bara Ndiaye macha allah di patriote jàmbaar fàq tëgg te lii mënoon na ko ci bañ a fekk ndax dañ koo tëj kaso di ko jéem a taal otom te buntu këram fitnaal ay jabaram xool leen lu mu daj yëpp mais tey la waalo gën a ay tey la gën a bëgg projet bi tey la gën a jàpp ci projet bi tey la ci gën a am yaqiin ak farlute ak pasteefu que projet bi yàgg yàgg day sotti lii du nen de ñaan yi doomu aadama yi xool leen lu ñu daj suba ba léegi yaakaar suñu borom subhaanahu wa taala gëm ni mooy buur moom moom te moom mooy fal mooy folli ñu jël seeni kurus di ñaan jël kaamil gi di ñaan ñi chrétiens yi di ñaan ñoom it